TGP dafa da ngay limité temps bi da ngay limité da ngay sentir ne tu n'es pas libre ndax dafa ndax limite bi. Ah, waaw limite bi defee yu bari surtout première fois bi. doo am disposition yi nga waroon am yëpp doo ko am. ak possibilité yi. léegi euh, da ngay gis ñu jàng aslëf ñu bari ñu bëgg a dugal ci bopp nit ñi ne takk gàllaaj araam na. daa gën koy juumte ci àdduna xadis bi leen wàcc mooy man allaqa tamimatan faqad kafa ku takk tamima weddi nga moo tax ma ne xadis lu jafe la lu mat a jàng jàng ba xam baati arab yi rek fab téere xadis mu wër la xadis bu wër la téere bi xadis bu ci nekk wér na yomb na waaye taxul a xam xadis waxoon naa danaa misaal toujours xew-xew boobu xewoon diggante ibnu Shubrma ak ibnu abi Layla l'imam Abu Hanifa di ko misaale ci mbirum hadis ak ni mu demee man àla qasami nag faqat kafara li ko indil lii la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñëwee ko yónnee mu nekk Makka dafa fekk arab yi am ay jëfandiku yoo xam ne tradition la woon ci seeni maam ñu daan ko def yooyu yëpp wuuteeg li lislaam indi arab dañu daan def bu ñuy tukki dañuy jubal genn garab dàq la ca nekk ci picc bu ñu naawee picc ma bu naawee jëm sowwu lañ doon defee ñu bàyyi ko bu naawee jëm penku jëm euh, ndeyjoor ñu ne baax na dal di dox yoon bi ñu amoon li ñuy tuddee al islam xërëm boo xam ne dafa taxaw nii ñu wut ay bant ay islam yoo xam ne da ngay dikk wëndeel bant bi benn bi ñetti bant la bii dañ cee bind al amir bi ñu bind ci an naahi bi ñu bind ci al mutarabbis al amir mooy defal annaahi mooy bul def almutarabbis mooy muñal ba beneen jamono boo wëndeelee tuuti poignée bi bant bi génn nga xool liñ ci bind bu dee al amir nga dem bu dee tukki la bu dee xare la bu dee lu mu doon rek bu dee wuti soxna la da nga ko def bu dee annaahi nga bàyyi bu dee almutarabbis mooy muñal ba beneen jamono. ñu gëm loolu ñu gëm itam ne ku takk sàllu cool yi da ngay gudd fan moog dojaru lépp ñu gëmit ne tàggum benn picc bu ñuy wax xoob. ku ci jël benn ban takk ko danga bari wërsëg ak yu bare bare bari yoo xam ne caaxaan yooyu la woon kàggum ci wàllu boo ko takkee da ngay sàmm ci wàllu yi da ngay gudd fan loolu daa nañ ko takk tamima la yooyu mel noonu mooy tamima yooyu nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñëw ne man àllaqa tamimatan faqad kafara képp ku gëm ne lii mën na jëriñ dara weddi nga li Muhammad indi sallallahu alayhi wasallam benn bis mu ne ndax xam ngeen lu buur bi wax ñu ne ko déedéet muy wax ne ñaar nee na te fekk dafa taw ba séet kii ne biddiw sàngam moo nu tawal ne weddi na yàlla kii ne suñu borom nu tawal moo moo nekk ci tawxiid yu mel noonu nga xam ne arab yi dañ koo gëmoon ci la tamima bokk mu dikk rek ngir dindi loolu tamima bi ko arab yi wax l'islam ñëwagul te ay doj la woon lu daan doon wala ay bant ñu jóge ci tàggum dara wala yax wala leen loo xam ne dañu foogoon ne lii mën na dara ñu di ko takk mën na leen a dara wala mën na leen a xëccal lu baax lu ñu bëgg wala mën na leen a indil njiglaay wala wala gaaf yooyu la moo tax ñu man àllaqa tamimatin faqad kafara tamima loola ko tax a jóg la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere téere bu ñu takk liñ ciy bañ mooy wax joo xam ne xamuloo lu mu tekki xamuloo kéefar ngi si biir xamuloo ay kuu yu jinne la ñuy jëy di leen teg place yàlla nga xam ne dafa seet ba xam ne yàlla doo nga mën kenn mënul dara lu dul yàlla mënulee gisul yàlla ba mën koo jàpp takk ko waaye wax yàlla ci yàlla la bokk ndax meloom la mu fab aaya alxuraan takk ko wala kum yàlla kooku tawxid la wane na ne kenn mënul dara lu dul yàlla damaa wan damaa dellu si wéeru ci yàlla kooku tawxid dëgg la ci gëm yàlla ngoog léegi nañ seet téere fiq yëpp li ci jàng yëpp set ko benn bu ci nekk amul benn boo ci xam dana la wax ne la takk gàllaaj maanaam bu dee alxuraan wala tur yàlla araam dañ la wax sax wala boo dee dugg ci duus bi nga xam ne bérébu sobe la boo amee gàllaaj maanaam bu dee alxuraan wala tur yàlla araam dañ la wax sax wala dee dugg ci duus bi nga xam ne bérébu sobe la boo amee gàllaaj summi ko teg fi ba dugg même bu fekkee jaaro bi nga teg sax tur yàllaa ngi ci locc ko teg fi ba dugg ba génn nga solaat ko loolu la ñuy wax c'est que dem chara risalati ibn abi zayd al qayrawani da nga gis wax ko si boo seetee xalil da nga ko gis da ko gis mag ñi jàng ni jeexal seen dund dund ay juróom-ñetti fukki at jeexal seen dund gépp ci gëstu lislaam ak xam ko nekk ci téere yi fi nekkoon yëpp yu jógee penk yu jógee seen soow yëpp ñëw ko ci ba ci at yu mujj yi naar yi bëgg a dugal loo xam ne amul woon duñ ko nangu <laughs> duñ ko nangu politique la nag te ñi ci topp yëpp nag dañoo xamul na mu demee xamuñu la xew du ma ko mën a wax ndax ci nit la te waaye bokkul ak lislaam lislaam lislaam léegi boo seetee dañ ne xadis bi ci gën a wér mooy sayxul buxaari ak sayx muslim ñoom ñaar nag far xadis bu ñu daje lu dul alxuraan loolaa la gën a wér ñoom ñaar ñëpp daje nañ ci ne boo dee takk gàllaaj wala ngay muslu wala ngay jat baat boo xamul baat wax joo wax joo xamul rek dañ ci nekk waaye bu fekkee ne mm, wax joo xam ne tur yàlla la moom taxul ñuy wax dégg nga barkeelu la non seulement barkeelu waaye tawxid la bu dee itam alxuraan noonu kon eh, wattandiku ci baat yoo xamul am na gis nga yoo xam ne kol ma daañu ko wax wax bind ci espèce l'istixaar la mas naa koo def dama koy bala suñu borom ndax waxi ajam la lu doy doy waar la boo ko defee li soxla si ngay laaj moom da koy daal di bu leer a leer a leer waaye gannaaw wax ajam la te xaw ma lu mu tekki maanaam du arab du làmmiñ mu ma dégg euh, dañ ko ba ma ci dugaloon du ma mag booba waaye de su ma defee tamit bu soobee yàlla <laughs> du ma ko wax itam kenn di ko dégg di ko def ba ay juróom benni baat lay jege yomb <laughs> <laughs>